Palma ma ak baal yalla ak ñu yàlla boole baal ndax jàmm na dàkk lu yàlla sàkk yàlla nañ ko buur bi yàlla defal am naa tooñ waaye na ak Oumy doo waay waay sénégalais. sa papa yow munoo maa bàyyi. la moo tax nga bëgg français yi. papa yéen ñëwal waa di ma wàcc. eh pression trop. ah baax na. baax na ay termes lan la. luy papa yéen nga waa di ma baax na. sur kokal la Ousmane ja ja ja daga def alhamdulilah haari kalla waaw wuyu ma déedéet du ci man du ci man du ci man courant coupé woon dem boulangerie ba ñu taal groupe bi groupe bi nangu la démarré démarreur bi tay tay noonu dinaa la indil ñett waa ñetti kilo waaw daa la ko indil incha allah cinq heures ah, ñëw inshallah di ngi ci teel jot 5 heures kay jàpp tay mom mburu mom bu tang jër nga ya, am waaw kay ummi way bi bu mënoo kaa changé dem mburu mënuma nelaw dem li nga wax dem bank ngi deg dégg ko man pour man xawma lon wax nay nan sa bara bara pa sibirira ho ci nga nekkon dem papa jàpp ma ko déedéet yap mo ko da baka arrestere génn ma ci def këccëg ma ci dama wax rek waaw fa laay mag yow baax na les cocochons booba borom danal <laughs> ci loo nekk namu naa la de namu naa la lool na nga waari ba lépp jàmm ça va ah tey da nga am ay gan ɗeɗe yeru argese walay sama dom jeey fo wow dina tele ñëw inshallah umbe umbe umbe umbe way sa buru yaa ngi tax ba ki may woo daa ba xanaa da ngaa orchestre barko ko yóbbu orchestre donte ci kor lan sama dom jeey fo papa ya, lu ma neex lay def ci kor lan nek eko eh, yi ngay waji ak soo yi tuti man nga fo ndank kan? rek ya lo boleh tahu Jangan takut lu ya lesak Ya lo menutup lu Mana ke bagas nak? nang minum Bagas yan Bagas Yan bagas Ter nak nek si jamono je nak ter Dek ko si jamono Boy yuk, isku ce que buron sa papa karo di galaj ba bagas yaa yëngu Oh Per, aju lo anak, lo lo nante lu ko Pour ma aju lo yaa eh, wax lo Waaw sama papa moo ma yóbbu Moodu Moodu man Moodu bu dëkk fii ah, waaw Moodu boo sama papa an sa maam sa maam mii fa ah. <laughs> Ah. <laughs> ah waaw yow laay def lu lay doon nee na mburu nga baal ko sept kilo sept kilo waaw Moodu sept kilo premier car wala deuxième car non non faga daga faga waaw faga daga moom da ngeen doon ay xar wala. non non ñun ndogo. yéen ay ndogo faga yi. waaw. Ah, faga daga. moo gën a diis quoi. ah. sama moom day ponce mais ñun moom ndambe la ngeen booleel. <laughs> Eh, sama il faut mu ponce nag sama c'est normal ponce. Ah. Mhm, mhm, mhm. léegi yéen yéen da ngeen da ngeen koy ndambe. waaw dañuy sama maam mooy ngeen ndambe. yaa kanay fanaan man maag sama mag ah, de ba day tàng par force la maa ko ñoom moom sa maam de sa maam du lekk mburu ñetti bëñ bëñ waaw déedéet mais fii daa jàll kay dafa jàll fii. maa ko ñuus mbëkk ñaf ko ko mbëkk kay. kenn bañ a dañ waaw. ah. <laughs> ci googu ñëw rek. <laughs> non noonu lay demee sax. man koo mos a dig mbëkk dem nga fay toog fay jooy. yow mi ah. kii rek ah sase bi kii. ku mos a dig mbëkk dem nga fay toog fay jooy. noonu lay demee sax yow sa bopp bi xaru baali baali rek ngay niroo. ah. su ma dekkee baali baali sa sa sa sa yaay néew talaa bi sa papa. so pay tala bir gëna rew ma bëgg sama nga mer nan ma ay bari bari ayya bali bali kan, man maa ko def nak ndax ba ñepp di am dombu gor mo na am dombu gor góor man uma daal jur dombu jigen la jur war na jur jigen man ma amul ful la ñuy wax ñi war nga tok fi ñi wax papa bari bari nga tok du xolé papa gor baax na jigen baax na gor baax na jigen baax na waye ne ko jigen bu baax bal ma ak bal yàlla boole baal ndax lu yàlla sàkk yàlla na ko buur bi yàlla defal am du ñàkk mës naa la tooñ waay na nga ma ko jéggal yenn saay saytaane man ma ma def